dañuy dem suñu benn élève la boo xam ne mi ngi fii ci centre bi nekk koo xamante ne yaru na macha allah bañ defee suñu briefing gis nañ ni prof bi lu wax ci moom baax na am na yar am na teggin Fatou Kounta nuyu nañ la. xëy nañ la maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di ñaan yàlla yàlla def fi jàmm barke Mouhamed. ah Fatou Diop la ñu wax moo jël première ñu ngi koy visiter di ko encourager. ndax mérité na ko ndax ku baax la ku yaru la ku tey la ñu ngi koy ñaan mu gën a góorlu bu baax jàpp liggéey bi ndax boo demee ba bàyyi jàng ni yow liggéey bi nga bëgg danga ciy am pasteef góorgóorlu si ñu ngi koy encouragé bu baax a baax mu gën a jàpp waaw loole lañ koy ñaanal mu gën a jàpp liggéeyam daal waaw. maa ngi wax euh, sama yeneen morom yi ñu gën a góorlu bu baax ndax métier bi métier bu noble la mën nañ mën nañ cee am lu nekk ñu góor góorlu bu baax a baax jàpp ko sunu fukki loxo ak juróom yàlla dinañ ci defal jàmm defal ñu ci sutura ak xéewal ndax ay xale lañu ay jigéen lañu nañu jàpp rek te a bàyyi yàlla baax na incha allah. ah ñu lay fay baax ah di kontaan rek. di wax ne métier bii moom métier bu noble la amul góor amul jigéen waaw dangay góor góorlu rek waaw te moom gis nañ ne dafa yaru te jànkat la waaw dañ koy ñaanal rek ci kaw ca kanam waaw di di waxaat ñun ñii rek ñu gën a góorlu ndax pay bi moom kenn moomu ko waaw ku góor góorlu rek jël ko waaw waaw ñu gën a góorlu rek xam ne liggéey bi moom waaw mooy loolu dañ ci gën a góorgóorlu farlu ci waaw buñ ci xaar kenn am ci fit liggéey bi métier bi moom kenn moomu ko waaw li ñuy wax rek ñu gën a góorlu te buñ toogee bàyyi lépp xam ne métier bi rek moo moo moo moo am solo waaw leneen amul solo lu la waaye wax lu dul métier téer bii ci nga ne lu leneen lu la wax amul solo ndax lii rek moo moo am solo ndax lii ci lañ nar a jariñu te si lañuy ñuy tekki jariñ suñuy waajur jariñ bépp waaw ñoo ngi bëgg loolu ci li ngeen ñu tey kii. nga gis ne objectif yi Ndiouga wax am na solo lool ñu ngi lay ñaanal sa Ndiouga li nga bëgg yàlla defal la ko mu gën ci yow di ñaanal élèves centre bi yëpp ki jël première ba au fonds ñu ngi leen ñaanal ngeen gëm yokk gëm-gëm lekk yokk seen pastef ci liggéey bi xam seen bopp.